bisimila daleen ak jàmm ci li gën a fës ci yéenekaay yi quotidien am am waxtaan bu yaatu bu mu seq kii di Seydou Gueye di porte parole bu gouvernement bi moom bu mel ni dafay gaaruwaale kook nga xam ni mooy Abdou Mbaye Macky Sall dootul nekkati président du samay kàddu waaye kii di Mamadou Lamine Diallo jiite Manko Wattu Sénégal moo ko wax ab waxtaan bu mu am ak waa Vox Populi tribune yéenekaay xëyee ci opposition bi nga xam ne dañoo mer ba fut ginnaaw bi ñu wooloo kii di maire bu Ndakaaru Khalifa Sall talaata gi mën a jàkkaarloo ak waa division des investigations organisation criminelle enquête di wax ci lëkkaloo bi am ci Sénégal ak Gambie ñoom ab doxalin bu yees lañu ñu nar a amal observateur moom mi ngi wax ci jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi dox foofu ci parti démocratique sénégalais Omar Sarr ak Aïda Mbodj du gën a yaatu ngeen lire journal bii di observateur wàllu tàggat yaram la ñu jeexalee Diao Baldé laqati na caax yi foofu ci Lazio